jërë ngeen jëf mbokk téléspectateurs yi ñuy topp ci Tordou Ville Thiès mbok i amaan nañ mbégte ak contentement xam naan tey bu ngeen ma gisee ma taxaw fii bu ngeen xoolee arrière plan bi xam ni mbëndum jamono muy taw bi ndox mi ah moo moo fi na nasaxal nara nasaxal dundu askan wi ba tax na fii ci Médina Fall tey dañoo xëyee nag jaxle ca taw bu njëkk ba sax lan commencé am problème surtout fi ma taxaw nga xam ne sorewul ak sama kër fii bu mu saan a taw ndox mi daan na wala ngaan dem waaye dafa ay travaux yoo xam ne maire zone nord moo ko fi def doon jéem a yaakaar ne loolu dina sabab ndox mi mën a taxaw bu dikkee wala mu mën koo naan wala mu mën koo téye waaye loolu kazalika dafa yokk dafa indi joote ba fi ne nii kër yi daawul taa sax fi ne taanan kër yi daan am jafe-jafe yëpp am nañ jafe-jafe incha allah dañuy ànd ak suñu caméraman dugg ci biir ndox mi xuus comme ni ko ni ñi defee war leen li xew ci biir koñ bi mën na fal. moo euh, jëf mbokk yi comme ni ma leen ko waxee sànq rek ci bunt bi euh, tey juggu na nag ci genn kër fii ñu taxa mooy kër góor gi Alsaan Saw nekk délégué de quartier euh, góor gi Alsaan Saw doon koo xam ne Thiès gépp xam nañ ko waaye tey gis seen këram gi ni mu mel lu tax këram gi mel nii nag tey travaux yi ma leen wax sànq ci introduction bi ci buntu këram la démarré nga xam ndox mi da daan wal dem versé ci canal ba waye tay gis nga ndox yi ci biir kër gi la dugg muy infraction bo xamne ne kenn mënu koo natamle gis nga kër gaangi ni nii gent na fekk ñu fi kenn ñaari xalé yi rek lañ fekk jigeen mag ñak xalé yi wuti nañ yeneen kër de fa gis sen seen bagage yi ni ko ni dem lol di ay jafe-jafe du ñak nak kenn ci ñom njaboot gi mëna wax ku baax ki nuy na la. yar na la waaw xew-xew bi mi nga am ay 5 h du matin lañu suñu ben papa yee ni ñu jug leen kër gaangi kër gaa ngi inondé ñun xamuñu ni mu demee bi ñuy jug fekk na ndox mi mane nañu dugg na ci kër gi lu bari kon donc boobu mënuñu mënuñu def lenn instant yooyu lu dul ak jéem a rawale bagages yi ci lañ jële yi ci des yóbbu ko néeg bee xaw naa kawe tuuti ñu jël ko aj aj yi ci des ci kaw lal bi yi ci des ñu génn ko yóbbu ko fii suñu benn kër mbokk waaw noonu la demee. Mhm. léegi ana waa kër gi ñoom. waa kër gi génn nañ uti nañ fuñ. seen kër xarit yi am na ñu nekk ci mbedd yi. waaw métti na daal métti na. mais lii lu ngeen yaakaar ne saafara moo mën a jur saa saafara mën na cee soxi ko fan la saafara mën a jóge. waaw ñu ngi ñaan dimbal tamit parce que defarool nu fii ay rigol rigol yi wax dëgg yàlla gisuñu ci gisuñu ci benn avancement uh-huh. gisuñu ci benn avancement parce que rigol yi daa mujj fees ba mbedd maa ngi nii gis nga ko ni ñu ngi ñaan daal ñu jàppale ñu defal ñu fi ay rigol yuy versé ci àll baag yooyu yëpp bëgg nañ ko daal wax dëgg yàlla loolu muy lu am solo ndax Bamba fii ma taxaw soriwul ak sama kër te li xale bi di wax man xamna ci dara ndax koro bi nga xamné maire zone nord Lamine Diallo amal nañ ko budget 17 millions ñi ni 15 millions waye jël nañ kenn ci ko xamné ne leen lool amna lu ñu ci jukil som bobu yëpp lañ ca def xel nanguwu ko ndax dañoo ñëw fi fi xale bi wax gas fi pax mo xamné ci ni tolna ay mètre dem ay camion xeer xeer yu xonk yi mulon yi sànni ca def ko genre fosse boo xam si ni bu dee fosse kër sax bu defee atmosphère waxuma laa ndoxum taw loolu xel nanguwu ko ndoxum taw da ngay wut ay nga wut mbir yoo xam ne fa lay jaar versé ca bitim dëkk ba wala mu wut fu nga ko versé ca canal ca àll ba waaye doo jël lu am pax fuuj ko def ci xeeru xonk naan bu tawee mu naan ko loolu indi na li sabab problème te yemul foofu ku nag balaa ngaa lakkale gis nga pax yu mag yi ñu bàyyi fii suuluñu ko kibéer yi xale yi mer dindi ko mu doon pax moo xam dañu nësax boo waay yàlla gu jóge fee amul ay bët bu doxee guddi ba ba surux ca ñu naan nii naan nee loolu nañ ci teel a jug wala suñu xale yu ndaw yi di fo nga xam bu taawee xale dañuy baaxoo di sangu ci ndox meek ndax ñoom xamuñu lu baax xamuñu lu bon ba dara fekk lañ ca loolu mat a seet la te li ci gën a neex Lamine Diallo ab gox boo fa nekkee ñu jox la ab gox bu ni toll nga am ab xalaat bu rafet ba ni def nga say kanaal ba ni def nga sa foos pour ndox mi mu taw taw ceebo doo ñëw xool sam liggéey fa mu toll da war a ñëw xool sam liggéey fa mu toll xool li nga liggéey baax na wala baaxul lu ci infraction waaye mu taw nga dugg sa néeg ndax yow toqum ndox dugg sa kër loolu xel nungu ko. dugal di leen wax nag sunu jaaxle at mu jot nag nii rek ndox mi day wër sunu kër di dugg ci sunuy néeg mënuñu ci dara amuñu ndimbal Lamine Diallo jàppale no jaaxle nan de te yow rek lañu jooyloo ndax yaa fii dimbalee nag Lamine Diallo wàllu nu soo nu wëlluwul kat du baax ndax jaboot danu ay duus ak ay lu ne mooy wal di dikk ci sunu kër gi mënuñu ne nag kenn nu koy def yàlla nu ko teg way at mu jot ak ni ndox mi wali di dikk duñu ko mën defar leen kon sunu dekkando yi ñu fi feesul daaw dañoo ñepp ñew di si ñëpp di dinu walu le wàllule dinu tàngale tamit ge sunu te dimbali nu te wàllunu soonu wàlluwul du baax ndax fi di dimbalee ci kees ñun yow rek la nu yaakaar jàppale sinu daawru mi nak no bok lepp mu ñew fi ci koñ bi xamni ne nun nañu ah mu ñëw di ci di nu wax pour nu jooy sunu lor ci yow jàpp lenu ci dimbali ndox maa ngi dugg ba ci sunu néegi bii kenn nelawul kenn nelawul bii ndox ma mi walwali di dikk ci sunu néegi maag sama wujj bi nuy ŋàcc sunu dëkkandoo yu ñëw de ŋàcc daawul gis nu xam ne noo bokk lépp mu ñëw dinu seet si kër gaa ngi pantare yeeg néeg yeeg faf lépp sax day senn faf li ñuy wax rek laay wax sonn dong la nu def sunu néeg yi fees na sunu pantere yi fees na kër gaa ngi ni mi ngi nii mel ni kàmb su tawee du nu génn sunu doom yi du nu génn du nu dara man fii laa daan jaay waaye bu xisee taw dootuma jaay damay tëdd rek di nelaw Lamine Diallo noo ngi lay jooy sunu lor nga dimbali nu defal nu fi loo xam ne ndox mi bu ñëwee day jàll di dem yal na leen yàlla jàppale nag sant nañ leen gërëm nañ leen yéen ñi déplacé wu ñëw ba ci nun ñoo ngi leen di sant di leen ñaanal yal na leen yàlla jëme ca kaw ca kanam ci dara jey yonent bi chaque année ni lay mel nak chaque année ni lay mel waaw wax lañ ko autorité yu bari bëgguma lim mais amna ko xamni xam barki dem dem na fa xamna aussi euh, ak xolam bu laab dina fi ñew waye dafa wara gaaw ni mal day gaaw suñu doñ buñu génné dañu dañuy jaar ci ndox mo bon mi gisé ko ni ñin buñu bëggé bëggee liggéey amuñu lu ñuy def en tant que ay borom këram dañuy teb mir di jàll da ngay am ñeente su yónni sa doom bo xëyee parce que mi ngi nii xale yi toll ci digg jàngi mënu ñoo jàngi parce que fi jaar pour mëna a jàngi

su tawé duñu génn suñu doomi duñu génn duñu défé dara man fi la daan jaay waye bu xissé taw dootuma jaay damay teud rek di nelaw Lamine Diallo no ngi lay jooy lor nga dimbali nu defal nu fi lo xam ndox mi bu ñëwé day jàll di dem. fi maamul fos côté bi maam foos. kay mu nga jaar dara mu nga jaar non fa fa moom ay xeer rek ay xeer yu wér mais nit ñi ben ko wóorul wóorul yeen ñi fi xam yeen ñi wax fi ni jaar. yoon waaw dégg nga foofu am na foos. parce que parce que foos perdu yi tamit day bari ci koñ yi. waaw waaw waaw fii ñu ni la ñuy wax euh, terrain Baye Mass. waaw euh, ñi ko gën a xam nag euh, te xam jàkkee Baye Samb Fall. Mhm. mi nga xam ni bokk ni si mag yi koñ bi nga xam ni ñoo sos koñ bi. Mhm. booy xool mi ngi si biir ci biir ndox mi te am na téeméer at yu teg nangam. góor gi moom mi ngi ci biir ndox mi mi ngi si biir kër gi. waaw chaque année dañ ko daan dañ ko daan génne mhm. yàlla dogal na ren jii gis nga ñoom jot nañoo defar fii ba ndox mi dugul si biir kër gi mhm. mais daaw ndox mi dafa daaneel dafa daaneel boo xoolee këram mhm. ba moom dañ koy yenn chaque ren rek lañ koy yéneegul waaye boo xool gis nga ndox mi ni mel fii gis nga ko kenn amu foo jaar ñëpp ngi seen biir kër yi kii ñii dañoo génn kër gi dañoo génn ah kër gi nga wees suñ ginnaaw dañoo dañoo génn bii si guddi dafa am maire boo xam ne moom doom doom si kër gi dañ doon yuuxu si kër gi ndax ndox mu dugg seen kër ñett ñett leen foofu mun ñoo génn dañoo mujj yuuxu nit ñi wal leen si guddi gi ah yóbbu leen si kër gi yoo xam moom lañ dendal xam nga loolu tamit yéeme na te jàpp nañ ni vraiment li ko waral lépp liggéey bi nga xam ni doon nañ ko fi liggéey te maire bi ah, sooxe ko si la bokk ndax euh, bi ñuy ñu koy waajal liggéey wax ñëw nañ fi waxtaan ak ñun ñu wax leen li nga xam ne mooy solution bi ñoom ñu jàpp ni solution boobu amuñu moyen donc li ñu man mooy def lii bi biñ koy defar tamit wax leen ni kan lii di solution ñu ni ñoom lañ defar ba xam dina baax wala du baax waaye gis nañu bi ñu bi ñu paree a ah dafa yokk joote waaye li li réglewul dara. mais ñoom mais ñoom li ñu dégg nii budget boobu lañ leen jox ah. ay cent de millions. waaw ak liñ fi def est-ce que méngóo na waaw xam nga euh, conseil municipal mooy woote en général budget mhm. te bi ñu wax dëgg yàlla ñoom ren mhm. woote loolu ñun budget fii dégg naa ñu ne 20 millions ñi naan 25 millions mhm. bi maire ñëwee fii dañu da koy séddale def jël yenn millions yi def ko fii yenn ñu def ko fële boole ko ñu Pathé Mbaye donc ñaari loolu la wax bi ñëwee fii ñun nag li ñu mën a wax mooy liggéey baax na wala baax ñun xaalis bi ñu intéressé wuñu na nekk 20 millions na nekk 15 millions lu mu mënti doon. mais liggéey bi yéen teg ngeen ci seen bët ndax liggéey bi ci xayma bu ngeen ko doon xayma euh, sam bi nu muy xam nga ñun duñu ay experts. ñoom jàpp nañ ni nee nañ réceptionné guñu. Mhm. mais liñ ci defagul man. man man man bu évaluer man. matul sax cinq millions man. cinq cent mille sax matu ko. waaw matul dara. ndax pisar la. ay xeer lañ de si biir. te boo xool daal diñ ci def ay fer yoo xam ne fer de dix la xuma loo xam ne comme ña ña fer yoo dal boo xam ne ay atu lañ ciy dugg di surux. xam nga loolu loolu loolu loolu taxul ñuy wax non donc ak waxuma la ñun euh, maanaam jafe-jafe yi ñu am. mais sécurité yi xale yi. nga xam ne ay rigol la. te lépp ay dafa am ay tur yoo xam ne xale yi mën fa mën nañ fa mën nañ fa gaañu mhm. wala ñu surux sax kenn du leen yëg mhm. ñu sécurité xale yooyu rek mooy gën a nekk suñu fa xale yi amuñu sécurité mag ñi mënuñoo génn xale yi nga xam ne ñoo fi nekk ku néew mënuñu dem def dem liggéey mhm. waaw kon muy nekk jafe-jafe mais maanta est ndax ba ñu gasalee ay pax teg fi ay rigol yoo xam ne leer nañu li mënul tey am ndox mhm. est ce que waru taxaw ni leen lii day gën a sonal bu leen ñu ko fi defal waaye bàyyi ban defal ba pare tamit ñuy indi jafe-jafe tamit est doyul waar xam nga tamit ñoom ñoo nekk ñoom ñoom ñoom ñoo fi nekk maire mhm. buñ taxawoon tey lii duñ ko fi def mhm. tey bu amee tey ji dañ naan ñun bëggoon ñoo defar ah ñoom ñoo bu ñu defar moo tax comme ñoom dañoo ñëw dañuy defar lii solution bi ñu bàyyi la ñuy defar mais ñun waxoon nañ leen lii lii di solution bi lay solution bi moo noonu ñu def ko jëm ko jëm ko si ONAS waxoon nañ leen ko wala wala chinois yi nga xam ne ñoo fi njëkkoon ñëw fayee ko li cher pour mën koo defar ñooñu dañ dañ lay teg fële ut ñeneen ñoo xam ni vraiment ab maçon ko doon liggéey man gis naa ko ab maçon la bu ñu waxante dëgg ab maçon la mhm. te ñi nga xam ñoo ne si maire bi ñoo fi mu a nekk muy ñi fi nekkoon si maire bi Fass ak ñi fi nekk kon ñoo xam nañ jafe-jafe bi nekk fii ñun nag wax dëgg yàlla li ñuy déploré te di ko wax encore une fois di ko wax euh, monsieur le président de la république mooy ñun fii daanaka man sama kër famille fii la nekkoon damaa toxo fa nii rek donc sonn nañu te vraiment depuis ba ñuy juddoo ba léegi daanaka nii la kon ji te wax dëgg yàlla ba ñuy créé Médina Fall extension di def lotissement yi ah ñëw na ñëw nañ ci koñ bii ñëw ginnaaw doo bës ko waxtaanoon ak ñoom waxtaan bi bokkoon na ci vraiment une solution ci lii mooy ah def redressement di gis nañ tamit zone zone boo xam ne couverte la ndox ndox Médina Fall yëpp si leen daje donc bu ñuy lotissé nañ recensé kër yi tamit jox leen ñooñu mën a jógee fii dem foofu bee gis nañu bañ ko def bañ ko defee na mu demee waa koñ bi kenn amu fi ñi ko so ñi ko yàlla woon joxuñu kenn joxuñu kenn te gis nañ ni conseils yi am nañu autorités yi am nañu dañoo séddoo suuf si rek dañ ko séddoo biñ ñëwaatee di nu waat kër yi ni am na ñoo xam ni defaguñ dara seen kër ba léegi tamit muy muy yàggul muy daaw xama daaw jëkk bi ñuy joxewaat kër yi kenn faale waa koñ bi kenn jox kenn joxu leen dara donc solution bi ñoom xam nañ ko te defuñu ko jërë ngeen jëf mbokk téléspectateurs yi ñoo ko gisandoo xam naa nag dañoo bëggoon a dem ba ci jàkkay baay Samb Fall jii nga dégg ñuy wax waaye ndox mi moo ñu ko mayul ndax fi ne xuus ndox ba ci baat dafa xaw a doy waar te fii ñu jëm xamuñu ay foos a ngi fi xamuñu courant ngi fi xamuñu la fa ne moo tax daal suñu xel moo nungul ñu àgg fa mais bëggoon nañoo dem ba gis fa la nit ne wan leen jàkka ja jàkka joo xam ne ndox mi dem na ba yëg ko ba toll ko ca kaw te damay wax mbokk yi man fii sama kër soriw fi fii lim daan taa ndox bariwul ni fi ndox mi daan mel nii bariwul bu njëkkoon man na faa ñëpp xam na ne taxi boo jël ni ko man na faa laa jëm du la nungoo yóbbu ndax danaan suuf sa dafa bari te xam na ne suuf suufu joor la doo xamante ne ndox mi lu mu taw taw taw taw taw bu fanaanee taw sax bu sawatee trente minutes mm, suuf si naan lépp ah léegi nag ci seen manaatu ak seen tële ñoom maire yi nga xam ñoo nekk ci gox bi ñu jox leen budget ay millions yu yu noonu noonu duñu eh, bàyyi di ko wax ah ñu xool nuñ ci jëme amee seen intérêt ba tax ñu liggéey fi liggéey bu bon boo xam ne k fa romb teg say bët xamoon nga liggéey bi lii mën a jur ndax suuf sos sa buñ ko fa bawoon buñ ko fa bawoon bu tawee sax mu mën a naan ndox mi waaye dañoo gas pax moo xam ni toll na ñëpp dëkk jël ay xeer mulon yi ci réew mépp sotti ko fa naan xeer yi lañu yaakaar bu tawatee mu naan ndox mi yokk nu joote léegi nag xeeree naan nan ba bandi mënatu ñoo téye ndox mi ñu versé ko ci kër yi xam nga ni fii ba ni nekk xale xamoon nga ni ndox mi da daan romb buntu kër yi dem ba ca canal ba sotti ko fa wala mu dem pompe 5 sotti ko fa nga xamante ne ay siyaan la fa daan def ba nooraan bi jotaan sax ñu ne ci àll bi dañ daan jël ci siyaan yu tàng ca ndox moomu di ko bay muy mbayum ndoor waaye lool lépp amatul te fi na mbayum ndoor amatul ndax ndox mi àggatul ci kanaal ba ci kër yi la yam loolu lépp nekk ci jafe-jafe ngeen war a toog concerné waxtaan seen biir ut ay experts yu xam wàllu woowu ñu defar ko waaye déedéet da ngeen di tëju bu ngeen amee seen budget muy tant de million ngeen ñëw gasum pax surtout fi xeeri million def ab naan fii ndox mi di yam gars yi nan waxante dëgg am réew du doxee noonu nan bàyyi rayante bi te li fi nekk ndox mi nag ngi nii ajaratu ñaaña kan conseiller la ci maire bi jàmbaar gis naa ko mu wokk ay sërëm dugg ci dëkkandoo yi kenn ku ne mu xool ni nga fanaanoo moom nag wax rek la man ak sabablu ak masaw waaye lay dogal ca Lamine Diallo lay jóge loolu nag dama ni jot nañu taxaw ci ñu ngi lancé nag appel son excellence monsieur le président de la république yow laay le président de tous les sénégalais bien vrai que décentralisé nañ li nga xam mooy maire bi Lamine Diallo nag Idrissa Seck ko fi teg teg na ko fi dem xamul ci li mu nekk waaye li mu nekk mooy nii yàlla wane na ko tey dañoo bëgg na ngeen jàppale ñu dimbali askan wi képp koo xam ne jox na la ndombal tànk la la war nga def ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.